Sénégal day dañuy gërëm ki taal bi fàtte ki taxani wóor Sud Quotidien ne ma dëgg-dëgg bu nu jàppalee ñi nga xam ne ñoo ne ci kaw fàtte l'école bi nga xam ni saa si tembe mi ngi sukuraat ci réew mi day maa day taal dina am ci sunu ndongo yi waaye ëllëgug réewum senegal it dina doon na jaxannama Sud Quotidien ne ma tey laa lay jagat-jagatee jëmale la ci l'école Sénégal goo xam ni mi ngi dund lu méttee métti l'école yu salte bon ba jéggi dayoo lii moo lëmbe saa si tembe l'école yu bari fii ci réewum Sénégal Sud Quotidien ne ma banxal sa baaraam muy ñàkkum ndox moo xam ni bari na l'école yoo xam ni saa si tembe la ñuy ñuy dund ay gaanuwaay yoo xam ne mënee su ko jëfandikoo ba dafa tëj ay l'école yu màgget ba boo moytuwul dina nërmeelu ci kaw ndongo yi ay abri provisoire yoo xam ne sakkan na lool ci biir réew mi sud ne xanaa wax noppee fi am de waaye l'école réewum Sénégal saa si tembe jagul demal ba diwaanu Ndar géej bari na ci lekkool yoo xam ni boo leen xoolee doo fa bëgg sax jàngee Kaolack moom lu toll ci ñaari téeméer ci jàngalekat la ñuy wër ngir mottali la am sa diwaanuk Sédhiou moom faf sax abri provisoire ñoo bariwul jàngalekat yi niki noonu diwaanuk Tëngéej école yu bari waaye tam màggetaayu yenn ci l'école yi tax ba njàng mi mënta door foofee te diwaanu mbuur ay abri provisoire nekk fa bari lool ay matériel yu nu jàngee daal di fay ñàkk tax ba njàng mi ci boppam doxul saa si tembe diwaanu mbuur te diwaanu Sigicoor jàngalekat yi bari wuñu taw ya daal di bari lool l'école ye di fees ndox foofu it Sud Quotidien daal di may xamal ni njàng mi daal saa si tembe daal dina fay tum ranke direct news daal di may xamal ne boobu nañu xamal président Macky Sall ne ko loo ci mënti wax it ak loo mënti def saa si tembe daal réewum Sénégal moo daal di tagga Témbé yéene kaay bi daal di ko njàng mi wax nañ ko doorul ci réewum Sénégal tagga Témbé na lu toll ci ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ci l'école dañoo am ndox saa si Témbé ay ministre yoo xam ne ñi ngi ci réew mi amuñu bureau njëg yi daal di cher ba jéggi dayo moom ministre de l'éducation nationale fii la taxaw ne téeméeri l'école yoo gis ci Sénégal juróom-ñeent fukk yeeg ñett tàmbali nañ seen njàng G20 ni ko wàññil ndax ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk saa si Témbé ngi ci biir ndox te l'école yooyee fii ak novembre xalaatuñu njàng ci ñoom moo ne day moom la république xamaloon na premier ministre ministre ne ko kantom horaire bi nañ ko daal di respecté njàng mi na door li gën a garaaw direct news ne ma am nay ministre yoo xam ne saa si tembe seeni kër la ñuy liggéeyee ndax amuñu bureau fast track bi gars woote woon la gisul saa tembe daal réewum Sénégal ku ne mettiwul dëgg-dëgg ku ne mettiwul dëkkoo fi le soleil yéene kaay ne ma boobu day gouvernement du Sénégal nee day tourisme ci boppam la fas yéene ñoŋal jaare ko Pointe Sarène Mbodiène Joal Fogno ak Basse Casamance a nii bourse de sécurité familiale yi kenn fayu leen mbaadu nguur gi saa si tembe dafa banque tribune yéen kaay ma boobu day gaayaa nga ca politique mel ni kuy teex-teex may ree yéen kaay bi dee média bi ne ma président Abdou Diouf ak président Abdoulaye Wade déggoo nañu ci téléphone waxtaan woo xam ne dëgg-dëgg seen xol daal dina ciy jóg ndaxu mbégte lii kay laaj ba tribune samp moom moo di mbaadu nag du andi ak coppite ci langu politique gi lii ko quotidien daal di samp laaj de nee na président Abdoulaye Wade ak président Abdou Diouf lu ñu nar ci réew mi tribune yéen kaay ne tout cas président Macky Sall moom naral du jàmm gannaaw Mimi Touré Abdoulaye Diouf Sarr waa Macky 2012 ci boppam ñoo fipp ci kaw président de la république ña ngi ko yekk saa si tembe xeteme gars yi daal ñi ngi waajal départu Macky Sall fa yàllaaxu yàkkamti ko lool nag ñi ngi reyante ci seen biir waa kër président Macky Sall ku ci nekk nag di xool sa morom mel ni dañ koy tam yéene kaay bi ne ma moo ne bu président taxawee day dañuy reetaan reetaan lu wan ko ni nag amul benn adversité ñi ngi ci jàmm waaye daal ñi ngi reyante ci seenug biir di yàqalante di gasalante ay kàmb sabab gi lépp nag moom moo di 2024 kan moo cay dem vox populi mel ni ku naan maan da ngeen foog ni président xamul lépp moom président Macky Sall day may na leen gaaruwaale ñoom ministre am ya woon xamal leen ni seen doxalin gii gu ñàkku ngor la ak kóllëre xamal leen ni nag buñ la tabbee ab ministre du nag da nga koy nekk éternellement déedéet dan lay tabb ci benn temps après nag ñu daal di lay soppi teg keneen en tout cas yéen kaay bi ne ma Matar Ba moom daal di nañ koy tabb def ko nag ministre chef de cabinet l'enquête quotidien ma tabbug Matar Ba day ma yëngal saa si tembe palais ba ndax nag Papa Samba Diop ci boppam lañ ko foogoon ndax nag daanaka mooy taxandeeru président Macky Sall waaye daal Matar Ba lañ fa teg vox populi yi daal di may xamal ne gannaaw ñetteet ak xaaj yoo xam ni day daal nañ koy làq jant bi Mamour Diallo président Macky Sall daal dina koy tabaat le quotidien le quotidien ne ma ca frigo de dee lañ ko daal di génnee moom Mamour Diallo daal koy sànni ci foos ya yéenekaay bi ne ma mooy njiital ONAS ñu des ak le quotidien le quotidien mu daal di dikkaat ak ñun ak Thérèse mi nga xam ni nag daal nay waxtaan ak ñoom ci engagement am ci FOGIP waaye tam jooyanti gi ñu bëgg a jooyanti kër ga Thérèse daal di xamle ni Mimi Touré day wax yi muy wax waxu ku nar a rek la ndax amul lu mu am ci mérite loo xam ni war na tax nag président tabb ko ci tabb yii mu xëy tey di ko ŋàññ le vrai journal ne politique réewum Sénégal a ngi nii de octobre 2022 ba février 2024 saa si tembe nag ñoo ñu nar a fat moom ñu jël suñu bakkan ak suñu ruuboo moytuwul jël suñu temps ak suñu énergie ñoom politiciens yi waxu politique la ñu nar a xëyee di ko gontoo Sénégal lu mu metti metti lu mu tartar jamono ji lu mu metti metti lu mu tartar njëkki lu ñu cher cher askan wi lu ñu xiif xiif politiciens yi ñoo nar a toog suñu digg bopp tongal nu fukki weer ak juróom ñaar nga xam ne moo dox suñu digg ak présidentiel nañu muñ ndax nag politique dong mooy am ci réew mi l'observateur ne ko xanaa boobu xamuñu ne saa tembe suqi saaf amatul ginaar a ndawal daal di bari nañu ko lekkatul te dibitër yi dina tëj le vrai journal ne politiciens yi tàlluñu politique la ñu tàll l'indépendant yéeni kaay ne ma ñay doxal politique ci réewum Sénégal day parti socialiste daanaka bokkatun ci parti la boo xam ne boo moytul dana faatu fa yàllaaxu te moo ne day wiiri wiiri jaari ndaari la woon parti socialiste dëgg-dëgg moo doon parti ci réew mi le témoin ne ko Ousmane Sonko day def nañ ko buur ca réewum séeréer Ousmane Sonko nag bëgg a teg loxo diwaanu Mbour 2024 yéene kaay bi daal di dama mbaadu Pastef ci boppam dafa bëgg nag bàyyi yeewi askan wi ndànk ndax ci nemmeeku tuuram gii moom Ousmane Sonko àndut ak Khalifa Babacar Sall àndut ak Barthélémy Dias àndut ak Déthié Fall stratégie politique la wala it dafa bëgg demal ci gël guyam tribune ne ko en tout cas dara doxatul ci kër Macky Sall wii nii noo gi day ci ñetteel bi mandat moo ko ko yóbbee turbine mel ni ku naan man scandale kañ lay jeex ci réew mi Kabiru Mbodj bu wari ci boppam mi ngi ci contrôle judiciaire ñetti soxna lañ ko tuumaale daf leen sàkku libération ne ko gannaaw benn dossier ci ndakaaru dossier Kabiru Mbodj bi daal daal dinañ ko yóbbu ca Paris libération yéen kaay ne ma ñu wax ci mafia visa yi nga xam ne dañ koy jaay ci ambassade bu France waaye tam rendez-vous yi nga xam ne dañ koy jaay ci VFS ne ma coow laa nga bàyyeekoo woon ca Moïse Sarr de août 2022 bii moo bindoon bataaxal consulat bu France ñu tàmbalee nag traqué ñi ko doon def am na ñun te jàpp am nañu daw yéene kaay bi ne ma visa bi ñetti million ak xaaj lañ ko doon jaayee yéene kaay bi ne ma ale Casa seen président ak président bu équipe ba la ñu yóbbu yoon tuumaal ko téeméeri million yéene kaay bi ne ma aba mi ñeen fukki at la am dañu ko bett nag ca ginnaaw raay moo xale bu góor bu am fukki at ak ñett ñuy sëy l'observateur ne ma xale bi du dégg munta wax ab suur muet la libération ne ma waaye ba ñu laajee waaju am ñeen fukki at gii lan moo tax muy tëdd xale bu góor bu am fukki ak ñett yii la xamal enquêteurs yi moom moo di mbëggeel moo dox seen diggante ak lu mën a am mbokk yi nan ñaan jàmm te yendoo jàmm